kenn mu ko tuddee association. léegi dañ ko war a xoolaat. dañ ko war a xoolaat waaw mi ngi nii maa ngi nii. Uh-huh. posé nga question ma yaakaar ne parti réew mi ngay wax. réew mi réew mi boo nee réew mi xalaat laa ko xalaat. <laughs> mais tey dama bëggoon ñu wax ci éducation ñu jël éducation nationale jox ko ki nga xamante ni moom mooy yi euh, Guirassy yi tey euh, ñëpp xam nañ euh, jéego yi nga xam ne daan na ko dox. ci réew mi laataa sax euh, le président Ousmane Sonko di def apparition am ci mbiri langue politique geeg di laaj réew meeg yooyu Moustapha Guirassy ñu def ko ministre éducation nationale. yow dafa mel ni da nga da nga da nga laajte. ama mm-hmm. may ñëw fii parce que question bi dafa doy waar. Mm-hmm. xam nga Guirassy tey su ma ci waxee. Mm-hmm. ñi may dégg yëpp dañ ne parce que xaritam la ñooy ànd. sama waay la sama xarit la. moo ci waxee. du la moo tax yow yow la ñu war a poser question moo tax mais cest à naa ni. ministre boobu. waaw bañ ko amee ba nëgën ku ko dàq yor grâce su am. éducation nationale gëm naa ni grâce dina ko réussir ndax d' abord gëmal ni moom parti prenante la ci une partie prenante la ci en éducation école bi gën ci Sénégal. Mm-hmm. école la ay at ci la nekk dañuy jàngal te mosut am échoué mosut am problème te école boobu ak boo jëlee kii yor ni ñu yore kër. waaw lañu ñu yore village ni ñu yore village. lañuy yore réew. Hmm. gëm naa ni. waaw dina ko réussir parce que xam naa ci moom ñett yoo xam ni. Hmm. intellectuel te hors pair la. Hmm. il fait des analyses systématiques et rationnelles. benn. waaw ku jub la. ku humble la. trop simple. très très très simple. il se glorifie jamais. il a des ambitions pour développer le Sénégal su ko enseignants yi dimbalee. mu développé mu développé enseignement. ah moom mooy dimbali enseignant yi wala enseignant yi ñoo koy dimbali di demander possible l'impossible éviter de demander l'impossible nous évitons nous tous de demander l'impossible mais la promesse est une dette li fi Macky Sall bàyyi woon. waaw nañ fexe en sorte que suñu mënul lépp ñu def cinquante pour cent bi. mais dañoo gis ni mënuñoo jeexal année scolaire bu jeex mënuñoo jàng année scolaire bu jeex ñun sax bi ñuy nekk élève daan nañ ko constant daan daan daan nañ ko. Euh, euh, daan nañ ko nemmeeku ci école yi année bu jeex dañ ko jàng te concerne euh, euh, remarqué wuñ ay grève yoo xamante ne enseignants yi dañ koy def est-ce que loolu ak ki nga ne mooy Moustapha Guirassy bu dakkul mën na wàññeeku. mais bu fàttali ko daaw jéeg tam grève bëriwul na avec sa sa la baron la. Hmm. am na année boobu année bi deux mille deux mille vingt quatre bi deux mille li gën a bu dëgg dëgg dëgg. waaw mooy bi mu indee problème Ousmane Sonko mais deux mille grève amul woon bëri deux mille deux mille vingt. y a année bi dafa neex. Mhm. mais bu mu ñu dugg ci wokk laal laa laake nag. Ousmane Ousmane laal laa laake ku ñu ñëpp bëgg. mais lan moo daan sabab grève professeur yi lu bari bari tarika ba tey bu ñu jëlee ku mel ni Anne di ko def ministre de l' éducation bi mu nekk course fii ñu ne Anne dafa jël sàcc xaalis bi nu mu tudd ci ay nu mu tudd ay ay ay ay kii nu xaw ma. ñebe ñëpp gars yi jàpp ko ñu jël ku def ministre de l' éducation nationale mais mën naa baax. Mm. mën naa baax. xanaa xamoo ni tey ministère bii li xew bëgg démb. ñu naan dañoo tar rek di Massamba dañ doon def enquête de moralité ñu jël nombre jël kii n'importe qui jox la n'importe quel poste. Hmm. il faut ñuy Sénégal li ñuy ni ñu ñu nommé léegi. ñu xam yi ay kan. loolu ab Abdou Diouf moo loon def. bi hmm. Abdoulaye Wade ñëw la ko dindi. Macky Sall bi dindi ko. Hmm. mais ministre dañ ko war dañ ko war a enquête. xool fu mu bëgg fu mu jógee nu mu dëkk enquête nag doyul sàccoo fenoo wurujoo lekkoo xaas jàmm. ku daa war a xam ñoo xam dañu war a nekk kilifa. waaw ñu ko war a mais ci ci yan base la Ousmane Sonko jàppee tànnee ay ministre am enquête de moralité boobu mu def wala sax day xool sa parcours xool sa expérience sa niveau ci yan critère la xoolee ba tànn yenn ministres yi. xam nga li am solo mooy xam-xam ci la bokk. waaw njub ci la bokk. Mhm. expérience ci la bokk. Mhm. vous avez bien compris. surtout sax waaw xam nga tey lu mel ni Birame Birame Birame Birame Diop. ban enquête de moralité ngay def ci moom parce que 40 ans à l'armée. 6 ans de chef d'état-major général de forces armées. qu'est-ce qui lui manque qu'est-ce qui manque. en tout cas c'est pas l'expérience la magistrat la mus ngaa dégg kenn dañ koo ger. Ousmane Diagne mus ngaa dégg dañ koo ger. parce que 40 ans parce que parce que qu'est-ce manque le général Tine. ah le le c'est le tous après le grand général. mais tey ñi nga xamante ni Ousmane Sonko tabb na leen ay ministre tey bu enquête doxoon ba ñu jàpp ci loxoy kenn naka la ñuy def. bàyyi démissionné fàttalikul ni Sénégal yàgg na am ay homme de valeur keroog bi Abdoulaye Wade nommé ministre de économie et des finances Seck du sekk hmm. dañ ko nommé mercredi jeudi vendredi samedi dimanche waa semaine defee ne dafa dafa dafa dafa sàcc xaalis bu bind ni bàyyi na ñu dem enquête ñëw dara loolu amul. waaw. à moom moo remplacé Macky Sall euh, euh, assemblée. Hmm. loolu mooy gor. waaw tey ñii ñu name tey. Hmm. suba bu ñu ci gisee kenn koo xam ni enquête bi ak na la. waaw def nga loo def. dañ lay boo gé boo démissionné démissionné loolu ngi noonu de ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Bamba Dièye. waaw moom mooy Cheikh Ahmed Tidiane Dièye. waaw ah nekk euh, un grand monsieur. ñu ngi doon xaar nag ci gouvernement bi parce que xam naa ni mënul woon a ñàkk mu def présence ci gouvernement bi. de par son expérience pourquoi mënul woon a ñàkk. ci expérience. boo ko ban expérience fan. Cheikh Tidiane Dièye. Hmm, ban expérience fan. léegi man maay poser question yi léegi kon. poser question léegi Cheikh Tidiane Dièye. Ah. dafa mel ni euh, poste bi ñu ko jox. Hmm. en tant que ministre ak wàllu hydraulique ak mbiri euh, aménagement yi. Ah. mel na ni poste boobu am na am na loo xamante ni dafa mel ni d'accord ci. c'est-à-dire. damay laajte non c'est-à-dire ni ko glorifié. Ah. te ay moroomam neef yi man la mu man uh-huh. ñu tànn ko ci. Uh-huh. loolu laa regretté. mën na ko yor bu baax. waaw te yaakaar te dina ko réussir sax. Mm-hmm. waaye ñeneen tam mën nañ ko réussir ko. absolument waaw kon. mais mais réussite mën na am. ci ci moom mën na am. mën na échouer aussi. ay parce que nit rek la. Mm-hmm. mais gëm naa ni dina ko réussir pour cent. mais mais voilà mais li tax Ousmane Sonko am yaa ko wax léegi am na ñoo xamante ni mën nañu fi. mën li mu mën nekk nañu fi mën li mu mën xam li mu xam tànnu leen ñu tànn ko moom def ko ministre wàllum hydraulique est-ce que euh, amul loo xam ne daf ko ëppalee ñooñu wala daf koo gën a jege Ousmane ko moo tax ñu tànnee ko. non non non cest que boo bëggee jël ñaar fukki nit ak juróom hmm. ci euh, fukki million ak juróom-ñett il faut nga jël ses responsabilités. Hmm. c'est tout simplement. Hmm. ëpp fi xam-xam ëpp fi expérience. mais chance am la am na ci moom yaakaar jël ko. mi ngi bëgg a xam ne yeneen ministres yi am noonu la demee ministre bu ñu fi jël loolu tax ma jël xanaa même généraux yi. waaw am na yeneen généraux yi nekk yoo xam ni bu leen jëlee ñu def nii li ñu def. ñu leen gën a tàng. non du gën leen a tàlli mais mën nañu def li ñu def waxuma généraux yi Macky Sall yi de. généraux ah. avant Macky Sall non attends y avait des généraux avant Macky waaw man je ne parle pas de Macky Sall. Mm-hmm. yéen yi dem retraite Macky Sall yi. Mm-hmm. je parle des généraux avant Macky Sall. les mm-hmm. généraux de Abdoulaye Wade et ils sont là. bu mhm. ñu leen jëlal ñu def li ku ñu war a fii seen roue yii nag. waaw yii muy muy muy tin ak kii nu mu tëddee. Birame Diop Birame ak seex ak Cheikh Wade. Mhm. exception à la règle la ci seen roue yi dem retraite Macky Sall. te ak yi dem léegi nii. waaw seen roue yi war a dem nii dans quelques jours. waaw exception à la règle la ci. dama la wax rek. Mhm. ñett ñooñu. yàlla moo def. waaw ñu judd ci judd bu rëy nekk ci yàq gu rëy dara jarul dara. seen seen ngor. Mm. seen fula seen fayda moo la gën a yenn yi. mais seen réewum di Macky Sall yi bu dee fukk juróom-ñeent yi. waaw jër mun sax nekk soldat deuxième classe. mais mais bi nga waxee ci généraux yi ñu bëri sax du man dong mais ñu bëri seen xel dafay dem ci la général Moussa Fall. keroog nga gis ndeysaan image yi moom ak jomaay ñu bëri dañu dañuy repost image yi ñu bëri dañuy jëlaat image yi réseau social boo dugg rek danga koy gis Basiru nekk ci kanam. Euh, général Moussa Fall nekk ci ginnaawam image yooyu ba nga ko gisee. Ah, lu lu mu la fàttali. non armée doo nga fa nekk état rek fa am nag. Mhm. état képp fa am. état dong fa am. keroog levée des couleurs. dama ni il fait il a fait que son de général haut commandant de la gendarmerie. Mhm. ce jour là. Mhm. mais est ce noonu la mel loolu la mën a def wala def leneen <laughs> day pré ñaar moo a am. waaw mu préféré démissionner avant kii bi. avant cérémonie bi. waaw ou mu ñëw taxaw def li ñu war a def. le chef suprême des armées. président Diomaye. Mhm. chef suprême. waaw des armées. Mhm. kon da ko war a obéir sans hésitation ni murmure. Mhm. il l'a fait c'est normal bravo mais mënul def la contraire su doon def le contraire mooy day bind lettre de démission dem toog est-ce que gëm nga ni Bassirou mën na dem ba jamono ba jamono neex wala ba jamono dem mu am lu mu lu mu sulli ci dossier yi xëccaat euh, le général Moussa Fall. je ne pour vous dire la vérité. Mm -hmm. je Mm-hmm. man Fall Maaw maa ko dul nangu. yaa dul nangu. mooy loolu. Eh, eh, dossier di ñëwaat dama ni ma nangu Diomaye président Diomaye Ousmane Sonko di liggéey ak Moussa Fall. je regrette c'est pas possible. gëmoo ñu liggéey ak Jom. du am du ne dama yàkkamti man. waaw mu limogé ko. te yaakaar naa ne mercredi. Mm-hmm. il va prendre ses responsabilités. ñu dàq général Moussa Fall. Eh, amuñu confiance ci moom. cest à moom ku amul confiance war liggéey moom. noonu la leer. waaw man li ma wax dama ko gëm. amul confiance ci Moussa Fall. mënut hmm. a liggéey Moussa Fall. tam moom mooy jël ay responsable dem et puis nag le militaire man le bon militaire du lu muy def toog xaar bañ taxaw parce que le militaire est sacrifié il la république un bon militaire kon général Moussa même bu yëgee un bon militaire du comme nous ñooy démissionné ñi nga xam ne dañoo indiscipliné <laughs> man seet dama démissionné dans l'armée parce que c'était un c'était un mauvais militaire mais un bon militaire du démissionner. Hmm. c'est un général n'a pas le droit de démissionner. mais est-ce que pour garder dignité am wala pour préserver lu bari bu demee ba xam ni mercredi le président Ousmane Sonko wala décret mën na jug dàq ko est-ce que mu jël ay responsabilités am xam ni kat moom moo euh, am nu mu mel daal di demal boppam gënul ci kooteem. man ci jour itam damay toog ñu dàq ma parce que loolu ñu ko jàngal. si jour étudiant mais gëm nga ni daal. <laughs> d'ici quelques seen c'est naturel bul te la ne. parce que diggante Macky Sall. Mm. ak ak ak ak Sonko. Mm. ak Diomaye mënut a baax ci àdduna. mënut a mënut a sax. Mm. nit ñi wax fii rek. waaw di wax ku ne wax loo neex mais ku ne nga am say intérêt bopp. Macky Sall li mu def Diomaye def ko Sonko. lu àdduna mënut a neex ba seen diggante neexaat. boo xoolee ni mu génn palais bi tey. waaw boo xoolee ni mu mel. Mhm. ñetti ñetti fan nga màgget. mel ni am nga quatre-vingt-douze ans. moom Macky Sall Macky Sall <laughs> ak Macky Sall. Euh. goos. Euh. fañ fañ fañ fa wacaacaa. waaw di fecc am doole. Euh. ñetti fan nga mel ni. vous êtes en phase de déclin. Mhm. Mhm. ndax li nga def nit ñi yi ngeen nit ñi. ngeen bëgg ni Sonko dina def ak Macky Sall ku nekkoon ak Macky Sall di obéir Macky Sall malhonnêtement. tu seras sanctionné. général Moussa Fall sama yónneeku ci ak ku ma doon. <laughs> <laughs> père père gars yi naan nee nañ yow rek la bëggee saa bi ci commentaire yi. waaw di mais bu ma jigee ci Basir ci euh, général Moussa Fall dafa am fenn foo xamante ni moom laa moom laa bëgg dem moom mooy ci euh, El Malick. kii El Malick. El moom tamit ci ndaw. borom borom kii bi. waaw bracelet bi borom borom kii bi. parce <laughs> que bracelet ndax du tax du moom takkal nañ ko ko nañ ko ko jéngi waaw <laughs> non non ah. mais mais ñooñ avant ñooñu sax per dama bëgg ñëw ci ci ci Mimi. parce que. mimi non kii laa bëgg nga waxal ma ci pare. El Malick El Malick waxal. xam nga El Malick. Euh. ce qui est extraordinaire. Euh. dañ def benn manifestation bu ngand. Euh. place Obélisque. mu ñëw yéeg. yaa de wax tooy ji. Mm. wane jéng bi. ma oh. kii garmi la. Mm-hmm. waaw garmi la. waaw c'est-à-dire mm-hmm. dafa demee le pion par rapport aux autres. y a des gens yoo xam dañu complexé. waaw mais dama koy nangu. fépp fu mu dem day génne ci wane ko. waaw lamb bi wane ko. dafa am fierté ci ci dafa am fierté ci lamb bi. waaw parce que teg ko boo xam ne dañu mm-hmm. la wax ci parti Pastef. waaw ñi ci gën a liggéey. Mm-hmm. moom ci la bokk. ñi gën liggéey jàpp ci projet bi dama ni ñu ñu làqoon a xeex. Mm-hmm. am ay argument yu taxaw. ci di ko wax ci fulaak fay la. moom ci la bokk bu nekk premier kenn raw ko ci. waaw leer la la wax. mais mais père foofu parenthèse laay dikk lan moo tax ñuy wax ni Pastef euh, gone yi fa nekk euh, ay beau-parleur lañ maanaam dañoo mën a wax débat boo buñ dem dañoo doj dañuy dañuy ba kenn nangu kenn nangu sax bokk ak ñoom invitation ndax boo demee dañ lay dammate ba ngay bëgg dee. waaw vidéo yi génne loolu wane na ko. waaw ba wax loo xam day yomb c'est lui qui tape dans l'obscurité wax day yomb. Mm-hmm. dañuy wax dañ ko xam Pastef mooy Pastef mooy lan Pastef mooy lan Pastef am pas-pas. di ko wane di ko démontrer. Mm-hmm. da da nga am Pastef. loolu mooy mais goney Pastef yi. Ah, non du goney bàyyi leen goney Pastef bàyyi leen goney Pastef. même magu Pastef noonu lay mel. <laughs> waaw comme yow. paawu Pastef man bokkuma léegi. man non man bokkuma Pastef. waaw allié Pastef mm. gis naa magu Pastef yi tolloo man. Mm. noonu la ñu mel. Mm. Pastef moo bi rek ngeen war a jël. donc c'est pas n'importe qui. xam nga APR. waaw alliance pour la république. donc ça c'est ça signifie absolument rien. mais xool ça Pastef li ñaata lettre la Pastef ah. tayeelam tayeelam. Mhm. moo tax mu jël trois lettres Macky Sall dafa yaafu tayeelam. <laughs> waaw moo tax mu jël trois lettres. APR waaw. te nag AR la war a doon. Mhm. mais da koy baal ndax ingénieur la. AR mooy alliance pour la république. parce que D benn benn lañ abrégé D ci euh, ci boo da convergence euh, boo jëlee ci convention internationale yi TDR la ñuy wax terme de référence D bi dañ lay may nga. nga nga dóor ko benn benn moom mm. mais de que la pour kenn ko ëppale kenn ko abrégé AR mooy alliance pour la république mais da nga koy baal parce que ingénieur la ça lui manque beaucoup de choses. <laughs> père man xam naa daal sa digganteeg Macky Sall man faa ma indi Macky Sall ngeen toog yéen ñaar pour ma réconcilier yéen ñaar ngeen waxtaan <laughs> ndax Macky doo ko may dara léegi suñu suñu suñu tata Mimi Mimi ngi ñëw ah Mimi ak expérience Mimi ak euh, jàmbarte bi. tey eh, ban poste ngeen koy xa ngeen ngeen koy xàllal ndax du ñàkk Mimi am na loo xamante ni dina ko comme suñu tata Aïda Mbodj eh, def ngeen ko eh, seen yaay ba pare tata Mimi expérience bi mu am yëpp yelloonti kowul ñu jox ko benn post ngir mu gën a servir réew mi ba ci kanam